murtajan minnatun lana jariun mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi dellu siwaat fii di leen nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq te di leen baal àq di leen ñaanal di sakku ci yéen ñaan dellu ci seen site bi ñuy wax 24 actu ñu ci amal sunu jataay bi ñu tudde madinatu ilmi ñuy siyaar mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuyu bàyyi xel ci réew mi ak ci bitim réew di ñaan yàlla defal leen sutura ak di nuyu mboolem kilifa diin yi ak kilifa aada yi di ci jiital si nuyoo bi soxna maam Xaari Mbàkke moom Cheikh Mouhamadoul Mourtada di sunu xarit ñu koy ñaanal fan mu gudd ak wér soxna moomi Kebe mu Alaaji Njuga Kebe ñu ngi koy siyaar baa di ñaan sunu kàddu fekk ko ci jàmm tey ji nag ñu dellu siwaat ci jataay boo xamante ni dañu ciy waxtaane lu aju ci kër jëmmi kër ndax xam ngeen ne nit ki ci kër nit koo gis rek ay wolof yi dañuy wax ne ci kër la kër googu nag nan la war a mel kër ak jullit lan mooy programme këru jullit ndax kër rek réew mi sax duñ koy programme ci lan ko nose ngir mën a yéwénal dund nit ki waxantuma laa kër gi nga xam ne ci la nekk waxantuma laa mbedd mi tamit xam ngeen ne lépp dañ koo def programme boo xamante ni ni la ci nit ki war a nekk rawatina nag kër goo xam kër ak jullit la <coughs> kër ak jullit nag la ca jiitu mooy kër ga na set set beneen bi ci des na laab ñaar yooyu xumban moo ci war a njëkk waaye mënunoo ñàkk ci kër kër goo xamante ni dafa set kër ak jullit war na laab war na set ndax bërëb la boo xam dañ fay jaamoo yàlla te ay jullit ñoo fa dëkk te ñaar yooyu bu dul woon jaamu yàlla gi sax set gi moom nit ki daf ko ittewoo ci wàllu wér-gi-yaramam ci wàllu santeem bu yàlla dogalee loolu am ci kër gi tamit kër ga war nañ fay julli taxawal waxtuy julli waxtuy julli mooy waxtu wu jot ñu taxawal fa julli amaana boroom kër ga nekk fa woo njaboot gi ne leen waxtu julli yu jot na ñu daje ci benn béréb mu jiite leen wala nekkut ca kër ga mu xamal leen ne leen julli heure bu julli jotatee na ngeen julli muy xale yi ak jigéen ñi ak mag ñi ñoom ñépp ñuy julli ndax yonante bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xale su amee juróom-ñaari at nañ ko digal mu julli su fekkee am na fukki at ñu dugal ko mu julli su fekkee dafa bañ nan ko bàcc bàccal nan ko dóor kon foofu ikam bi nga ciy dégg mooy lislaam kon bu amee juróom-ñaari at dóorluwu ko daf laa wax rek na nga jéem koo nax muy julli benn sooy dem ci jàkk ja nga yóbbaale ko wala ci biir kër gi nga ne ko ñëwal julli mu ñëw ci sa xam ngeen foofu sax matalagut julli waaye nag liñ ci bëgg mooy nga tàmmal ko ko bu amee fukki at nag war na fekk mu miin ko ndax bu ko jàngee ci ñetti at yoo xamante ni waxtu nekk saa julli ne ko ñëwal yenn mu julli ñaar rakk dagg yenn saay mu julli benn rakk yenn saay sax mu yéeg ci sa kaw yooyu yépp nga koy xamal ndànk-ndànk julli kenn du wax kenn du def nangam bu nuy julli nangam yooyu bu demee ba mu am fukki at nag dana fekk xolom bëgg julli fekk mu miin koy tamit ay cëram miin ko moo tax waajur wi foofu la war a tàggate doomam pour muy julli euh, kër gi tamit na am waxtu woo xamante ni waxtu jàng la waxtu woo xamante ni jàng alxuraan kër ak jullit jàpp naa ne jàng alxuraan dafa war a bari lool sax dafa war a bari ndax yonent bi salaa salaam daana wax dee leen jóg di julli seen kër yi bu leen ko def comme bàmmeel manaam di jóg guddi di naafi la di jóg di julli mooy am na waxtu yoo xam ne dañoo téye xale yi nga xam danoo toll ci jàng ñu leen heure sàngam na ngeen jàng moo xam alxuraan la ñuy jàng moo xam beneen xam-xam bu dagan boo xam ne dañ ko war a jàng noonu programme la war a doon ci kër gi programme boo xam ne xale bi dafa war a jóg bu fekkee day jóg fajar di jàng baana bu fekkee danooy jàng comme ni koy defee fii heure marax baax na bu fekkee dafa nekk nag ci waxtu yoo xamante ni waxtu yu ni yu yu kiit la waxtu yooyu moom dañ koy wax mu toog rek wañ kër yi tamit war naa am waxtu woo xam ne dañoo war a nelaw waxtu woo xamante ni sunu tolloo ci waxtu woowu dañoo war a wax ñëpp dem leen tëddi benn moo xam muy xale yi wala mag ñi dañoo war a tëddi bu dee ci bëccëg gi su naal nan bu nu añee ba noppi ñu nelaw tuuti donte fanweeri minute la ñu nelaw ko xale yi dem tëddi ñu nelaw waxtu woowu ak waxtu suba teel ak waxtu kii sax dañuy bañ xale yi ku ciy dugg sa néegu waajur ndax waxtu yooyu waxtu yi kii la nin ko waxee waxtu ses la kon waxtu yooyu kenn waru ciy jóg xale bi tamit war na noo amal ci kër gi programme boo xamante ni mooy kër gi waxtu woo xam ne ñëppay nelaw dañuy tëdd ñëpp ñooy tëdd waa kër gi nga xam ne du doon wax kër goo xamante ni day désordre mooy kër goo xamante ni daal amul heure bu ñuy tëdd amul heure bu ñuy dugg heure boo xam ne boo tëddee tuuti nit ñëw fëgg la boo tëddee nit fëgg nangam loolu kañ ngay nelaw xamoo ko war na noo amal heure yoo xamante ni ku dikk tëdd bu fekkee du ko am ngànt boo xam ne comme dafa am ngànt bu dee ko am ngànti tamit war na noo fexe ba moom bu dikkee ñi mu fekk ñuy tëdd di nelaw mu bañ leen a yee bañ leen a déranger kër gi tamit war nañ ci amal programme boo xam ne du télévision bi dañ koy ubbi rek mu dem ca kaw wala dama bëgg a déglu ni ko nit ñi defee ah kële yi tamit ubbi teleem wala ubbi rajoom rajo bi kër gi ne kii fekk ne eh, segam ñi nga dëkkal sax dañuy aaya nga seene leen te dëkkandoo bi njëkk ci nit ñi mooy dëkkandoo bi nga dëkkal ci biir kër gi mooy sa soxna sa soxna ak sa doom ñooy dëkkandoo yi gën a njëkk ci yow koo xam yéenay bokk benn lal wala yéenay bokk benn néeg kooku mooy sa dëkkandoo loo nekk moo koy njëkk yëg war nga koo seene bu fekkee da ngaa bëgg a déglu dara te ngeen bokk néeg bi am na heure yoo xamante ni sañoo ko da ngaa war a fay da war a tëdd ni mu war a tëddee ba beneen heure wala amaana ngeen bokk néeg bi làmp bi am na heure yoo xam da ngeen ko war a fay ndax parce que yow mi nga xam ne bëggoo nelaw waaye ji nga tëdd nekkal moom mi ngi yaa ngi koy déranger ndax moom dafa bëgg nelaw te amaana dafa bëgg a teel a xëy jóg jàngi wala amaana dafa bëgg a teel a jóg pour liggéey yooyu yëpp bul topp yow sa temps bi nga am ak ñàkk temps bi nga ak xam ne amoo ko da nga ko war a seere ngeen war yéen ñaar ku nekk laa dara yi war a diraay kenn bala ñu lor kenn bu fekkee na ngay wuyu téléphone sax te nga toog ki nga xam ne boo wuyu xañ yaa ngi koy déranger benn mi ngi jàng wala soit am na lu muy déglu wala am na lu muy seetaan danga war a génn ca biti pour bañ koo déranger waaye léegi da ngay seetlu ne nit sax day wuyu téléphone nga dégg ko fële ca kaw muy wax ñamus xaw a sori tuuti sax da ngay dégg na leen di déranger di xàqataay di ree am na limites yi yoo xam ne tamit moom nga war a wuyu ci téléphone mënoo warut téléphone wax dëgg bu fekkee itte la rek warut gudd gudd gudd ba passé juróomi minute pour koo gudd waaye jël téléphone am ci lu mat daanaka ñaari waxtu wala ñetti waxtu di wax rek il faut nga seeni nit loolu ak reetaan yi ngay wax ak yooyu yëpp loolu dañ koy organiser ci kër ndax kenn warul lor kenn benn bi ci des am na waxtu yoo xamante ni ay waxtu lekk la waxtu yoo xamante ni bu jotee nit ñi dañoo war a xam heure boobu ne heure la bu nu a kii kenn warul doxi bu dee kër gu mag goo xam ne bëgg ku ne nga bëgg ko tibal wala nga xaar ko loolu day yàq programme kër gi nan xam heure yi nga xam ne heure lekk la ñëpp ñëwandoo bu ko defee ñu mën a kii koo xamante ni xañ na fekk na nga doxi wala ngànt am ñu xool nu ko ër waaye bu fekkee ne kër la goo xamante ni ku génn ñu tibbal wala ñu toog di la xaar am na ñooy root ci kër gi te kër dañ ko war a organiser bu baax a baax organisation bu baax bokk na ci kërug jullit yi tamit wanag yi buñ ko def ci noo xamante ni ki nga xam ne dafa dugg ci wanag wi dafay bu toogee ci sées bi day jàkkaarloog penk bi wala mu won ko ginnaaw loolu dan koy aaye mu won ko ginnaaw ak mu won ko kanam ñooyam yooyu yëpp lislaam da koy te léegi da ngay dugg ci këri jullit yi dangay fekk wanag yi noonu lañ ko installé noonu lañ koy installé te lislaam dafa bàyyiwut dara boo gisee ñuy waxtaan ci siise bi ñu ci bari xañ na dañ koy woyefal waaye li ci nekk ëllëg yomal xiyaam boo demee liñ lay njëkk a laaj mooy sa dëkkandoo bi nga dëkkandool sa doom jeeg sa ñi nga nekkaloon ci kër gi àq yi nga leen yoroon ñooy njëkk a jël seeni àq ñu ci des soog a ñëw jël seeni àq kon loolu dañ ko war di waxtaane ndax lislaam dafa bàyyiwul dara am na kenn ku tasee ci saxaaba yi naa ko yéen de xanaa seen yonante bi dina jàngale dina leen jàngal ba jàngal leen bu ngeen di dugg woon ak nu ngeen def boobu daf ko doon jéem a reetaan rek di ko wan ne ko bàyyiwu leen dara mu ne ko ah ñun koy jàngal nanu ko booy dugg woon ak kay am na looy wax am na sa tànk booy njiital sa tànku càmmoñ ngay jiital booy génn njiital sa tànku ndijoor boo toogee boo noppee yooyu yépp ak li nga war a diire ndax wanak ku nekk xam na ne seytaane dafa nekk ci biir su nag seytaane daf caa daf caa nekk seytaane daf fay béréb yu muy làqutu moo tax yonante bi salaa salaam jàngale loolu kon bàyyiwul dara nit koo xam ne dañ laa topp bi nga juddoo ba ba ngay dugg ci wanag yépp booy tëdd sax dañ lay wax ni ngay tëddee kon lislaam bàyyiwul dara euh, bokk na ci kër jullit tamit ñuy woor ci kër gi koor am na koor yoo xam koor yi sunna la di woor altine ak alxames am na kër yoo xam boo demoon fi ñu toll bis yooyu dañ koy woor bisu altine ak bisu alxames ndax yonante bi salaa salaam daf ko daan woor sunnaal ko am na ñuy woor ci weer wi tamit euh, yi nga xam ne moo di euh, ñetti fan yi nga xam ne moo nekk ci weer wi di ayaamul biid yooyu tamit dañ koy woor muy fukki fan ak ñett ci weer wu nekk ak fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom yooyu sopp nañ ko ko woor sunna la yonante bi salaa salaam daana ko woor am na kër yoo xam boo demoon programme boobu nekk na ci biir kër ga bu weer wi amee loolu dañ koy woor altine ak alxames dañ koy woor loolu nag day wane rek ne jullit buy roy bu nekk ci këram boo xamante ni di sunna li sunna laaj ci këram loolu lépp ma ngi ko fay def mooy jàng alxuraan ak def salaatu ala nabi ak ay koori gàtt nga ak yu bari daf koy amal ci kër gi kër gi tamit war nañ cee amal kilifa koo xam mooy doon kilifa kër gi nga xam ne moom Euh, ñëpp dinañ xam ne mooy kilifa kër gi bu fi nit dikkee ka koy recevoir ndax kër yi fi ñu toll ni mu désordre jéggi na dayo tey koo xam ne sa xaritu jëkkër la ñëw ne day seet sa jëkkër bu dikkee yow jigéen ji lay sa programme ak warugar mooy sëñ bi de dafa génn nekku fi waaye amaana entré ko ca biir wala entré ko si biir néegam wala sa biir néeg naa ko toogal dem wuti ay ganaleeg ay boisson yépp dikka am na foo xam ne dafa ëpp dayo boobu ëpp na dëgg la gan la bu fekkee ku jógee foo xamante ni soriwul xam nga ko day seet sëñ bi benn na toog ci biti wala nga wutal ko foo xam ne daf fay mën a toog mu defee mën a xaar kii bi waaye yaag moom rek ngeen dugg ci biir wéet euh, nga jàppe ko noonu loolu it ëpp na kër kenn waru fa dem na bu dikkee di seet sëñ bi daal foo jógee mu ne ci dëkk bi nga ne ko ah sëñ bi da wàccagul wala dafa génn bu mënee dem ba waxtu sàng na ko waxtu sàngam di ñaari daana ko fekk bu fekkoon waxtu woo nga ñëw di nga ko fekk mu war a delluwaat waaye jàll sil toogal xaar ko mu toog nekk sa biir néeg wala nàngam loolu ëpp na loolu kenn du ko def kër gi tamit baat bi kilifa gi moo ko yor mooy ñaar ñi mooy yaay bi ak baay bi doom ji nañ ko yar ci biir kër gi lañ koy yare ndax yi nu bañ mu def ko ci biti yépp ci biir kër gi lañ koy jàngale yow kat booy lekk nii nga war a lekkee nii nga war a def nàngam loolu yaay ak baay dañ ko war a jàngale xale yi bu ngeen di lekk war nga warul leen leen a beral seen ab télé rek ñu nekk fee di seetaan lu nu bëgg seetaan seetaan waaye waru leen a beral seen ndabit nu ñuy lekk ñu lekk fële ba kenn du xam naan la ñuy lekk lekk ni war nga ko xool ndax foofu da bokk ci éducation bi ngay yar xale bi Ibnu Abbas nee na bokk na ma ak yonent bi am ñeenti at di lekk di def rek fu ma gis dogu yàpp jël ak bu may lekk bala ma sàqami du mokk ma jëlaat waaye yonante bi dafa téye sama loxo ne ma xul bismillah wa kul mi maa yelika ne ma booy lekk na nga wax bismillah te booy tibb na nga tibb sa kanam te boo lekkee tamit na nga ko sàqami ba mokk nga soog a jëlaat Ablaye Ibn Abbas nee na loolu dafa mel ni dem naa ba am sikkim bu weex taal dafa mel ni yàlla yonante bi de loolu dañ koo garaawee sama xol waxtu wu nekk day nekk sama xol kon xale bi da nga koy jàngal kër gi tamit bëgguñu ngay saaga yow yow miy yar di saaga xale bi ndax xale bi ci kër gi lay jànge li muy wax ci mbedd mi lépp ci kër gi la koy jànge dégg yaayam di saaga wala mu dégg pàppaam di saaga mu jàpp na lu jaadu la jaadu bu ko defee nag yow saaga bi mu la mën a muñal ci sa xol ndax am na ñoo am seen doom bu leen saaga dañuy dañuy reetaan ah ma ngi saaga a ngay nàngam loolu nga mën a muñ tey bu ko waxee keneen kooku du ko mën a muñ kon bul ko muñ di wane ne xale bi day jàng saaga ak li mu wax ak nàngam ak nàngam a ngay dégg mu saaga saaga wu mag boo xamante nii doo xam fu mu ko jëlee te ñaar rek la ko mën a jëlee mooy yaayam ak baayam ndax foofu rek lay roote xale bi foofu rek la toll wala ci biir kër gi la koy jànge kër gi dégg na ñuy saaga waaye bu fekkee dégg ko moom bu ko déggee ci mbedd ma sax day du ko du ko teg du ko jox lu am maana waaye li mu déggee ci kër gi rek loolu lay jox maana ndax day dégg na papa ma ngi koy wax yaay ma ngi koy ngay gis xale boo xam ne sax daanaka da ngay dégg mu saaga boo ko doon dóor sax mu saaga ndax nangam nga dégg papaam wala yaayam di la wax kii xale la xamul dara bu xamoon dara du la saaga man xaw ma waaye ñàkk xam dara googu moo tax ñu war koo yee ndax comme xamul dara dañ ko war a yéene ko li muy def loolu nag ci yaayam ak ci baayam ak ci kër gi muy dund rek ci la war a kër ak jullit jàng alxuraan bu dara daanoo nga ne allahu akbar wala boo gisee loo ragal subhanallah yooyu xale bi daf ko war a teel a man allahu akbar subhanallah la xaw xawla wala xawata xeet yi kii yooyu yëyu yëpp daf ko war a di ko dégg ci yow ba ci saari alxuraan yu ndaw yëpp xale yi war nañ koo mën a mokkale ci kër gi am na ci ñu bari ñoo xamante ni seen yaay ak seen i seen baay ñoo leen jàngal saare alxuraan yu mag yooyu bañ a concentré wu loolu tamit xale bi tamit waxoon naa ko léegi buy dem wanag war nga ko wax ni muy demee bu demee laab gi mu war a amaale ci wanag wi war na bu génnee ñu teg foofu ndox moo xamante ni daf ci raxasu ak saabu ci biir wanag wi xamal ko loolu ne kuy dem wanag dangaa war a raxasoo saabu dangaa war a am kotal wala yooyu yëpp danga ko war a def yooyu yëpp éducation la boo xamante ni xale bi da ko waram set gi ma waxoon tamit bokk na ci ñaar yi koy gën a kii mooy waañ wi ni togge waañ wi war naa set setaay boo xamante ni waaye léegi da ngay dugg ci waañ daanaka yow boo ci duggee doo bëgg a lekk sax boo génnee ndax parce que waañ wi day taq taq ba nga xam ne kenn du xam lu doon bu la fii leen doon toggee lii ñuy lekk de yàlla sa xel du dox pour lekk law ndax jigéen foofu bokk na civilisation bi takk boppam ba kawaram du mën a denc kii bi ñaq wi nga xam ne daf ko amit mu fexe ba ñaq woowu di bañ ndax loolu mën naa am da ngay gis jigéen joo xam day togg ñaq tooy xëpp dëgg la taal bi muy tànle loolu mënul ñàkk waaye civilisation war na faa feeñ xam nga ñaq ba tooy xëpp tiim ndab li tiim cin li du ñàkk moos lu ca tàbbi wala say karaw wala yooyu yooyu yëpp dañ la ko war jàngal benn bi ci desaat mooy ci wanag wi am na ñoo xamante ni fi ñu toll wanag wu set sax moo leen gënal waañ wu taq maanaam wanag waañ wu wanag wu taq maanaam moo leen gën a kéel waañ wu taq lin mën a muñ ci waañ wu taq mën na ko muñ ci wanag am na ñoo moom mën na noo dem wanag wu taq sax ñu concentré wu noonu ndax taqaay boobu te loolu dafa mel ni sunu wanag yi nit ñi ci kër gi joxuñu ko benn àq dañ koy bàyyi mu taq taqin woo xamante ni bala ngaa kii nangam surtout boo amee gan balaa dugg ci wanag war ngaa dem xool ba xam situation wanag bi nan la mel ba noppi soog ko ne ko jàll si mu dugg ak ndox yaag ya am ak yépp yooyu yëpp bu lekkee ba noppi tamit war naa raxasoo loo xamante ni xet googu du génnaat te dem fenn waaye man heureusement fi ñu toll xoola kër ni lekkee xale yi dangay duggandoo sukkandoo xale yi fu nekk seen loxo di fa dem yow doo mën a wax sax yow mi nekk ci kër gi bu dee këru famille boo waxee ñu ne la bàyyi ko xale la nangam yooyu yëpp noonu déedéet xale la waaye xale dafa am nu koy organiser ak nu koy jàngale lekk xale dañ koy jàngal lekk jàngal ko tontu jàngal ko lu muy wax jàngal ko nu muy tooge jàng yooyu yëpp dañ koy jàng surtout xale yi jigéen yi toll ci sëy yi da ngay gis xale boo xamante nii macha ci wàllu taar ak yépp waaye tey bu dikkee heureusement du man togg du mën fóot du mën a tontu du xam dara daanaka moom daal yor portable am gàddu mën a recevoir xaj na li muy mën a kës néew recevoir gan toog waxtaan te waxtaan sax du ko man ma nga concentré wu ci téléphone am ak nangam ak yooyu li daal bokk na ci yu nu waroon wax yu bare bare kër nag ki ko yor faaw mu dëgër mooy borom kër gi faaw mu dëgër jël ay responsabilité am di wax yu bari ak tëral ay loi yu mu tëral ci kër gi kër day am loi segam biti bi moo am loi est-ce que kër gi kër gi dafa war am loi bu dëgër boo xamante ni kenn du xët loi boobu ku ko xët nga dal ci kawam mais bàyyi kër gi rek mu daan kër goo xam gu désordre nangam fu nit fore nit tamit dugal ko kuy dugg kuy génn doo mën a xam kan moo dugg kan moo génn loolu kenn xamul lu doon te yooyu yëpp day indi ay jeexital nit bu duggee ci kër benn dina fa jële wala mu wàcc fa ndax ñi dikk dinañ xool ci moom dara lu jàpp ne war nañ koo jël ci moom xañ na lu baax la wala lu bon waaye moom it dina fa am lu mu fa jëlee xañ na lu baax ak lu bon am na koo xam ne foofu laay daanee la ab jaam la boo xam ne koo jaayoon euh, ñenn ku ko jëndoon jaam bi nee na euh, bi mu demee ci kër gi jaam bu jigéen la sax nin ko nettalee nee bi mu demee ci kër gi nee na ñu jaay ko ñooñu bi ñu ko ko fa jaayee nee na yàlla dogal mu toog ba guddi ay boor trois heures du matin mu jóg ci kër gi di yeewaa kër gi jóg leen julli ñu ne ko ah fajardaa jot ñu ne ko déedéet mu demaat ci keneen yee ko ne ko jógal julli mu ne ko fajar daa jot mu ne ko déedéet mu ne ca suba ga mu xàccaat dem ca kam jaay ne ko man dama bëgg nga xàccaat ma ndax ñii ma kër gi ma jaay duñ julli guddi mu ne ko xoolal loolu kër goo xam koo xam ne ab jaam la dañ ko jaayan muy jigéen mu ne duñ julli ñoom ñu ne ko ndax fajar daa jot mu ne leen déedéet waaye la nga ciy jàng mooy ndekete ñoom du ñu julli lu dut fajar la ñuy julli ñun nag suñ fii ndax bu nu jotoon ci lool duñ sant koo xam ne bu fajar jotee rek nga julli borom kër gi war naa fixé suba teel mu yeewu moom fexe ba ñëpp di yeewu di jug julli tubaab yi sax heure yooyu seen heure yu nuy yeewu la waxantuma la ak jullit bi nga xam ne yonente bi nee na rakkaxaatil fajara xayru mina dunya wa ma fi ah ñaar rakk asalaatu xayrul na naw mi julli moo gën ay nelaw yooyu yëpp ay ngëneel la yoo xamante ni ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp lii ab tomb bu gàtt la woon bu ñu doon waxtaanee ci biir kër danañ ci dellu siwaat beneen jana euh, Cheikh moo nekkoon ci caméraman bi ak euh, ki nga xam ne moo nekkoon di monter mooy soxna Khady Niang ki doon réaliser émission bi soxna Awa Ndiaye wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. murtajan minnatun lana jariun